bare bari ci àdduna bi wax ne musique bu ak tolluwaay bekk ndaw ñi nga xam ne ñoo si dugg style bi nga xam ne moom la yore ci lu jëm ci wàllu wee single bu bees bi nga xam ne génn na ko tudde ko ko la bàyyi lépp daan na koy leeral ak lan moo ko waral moom Idrissa Diop wax na ci albumam bii nga xamante ni succès bi bëri woon na lool maanaam di nobel ak nan la ko doon dundee moom Idrissa Diop wax na ci réew mi wax na lan moo tax maanaam très rarement li nga xam ne mooy ay spectacle nee na nag bruit bu bëri bi maanaam piccog mbaalo gi na nag fi nga xam ne fi lay ma ngi ci yéen kaay gii di réew mi quotidien yéen kaay gii di direct news xëy di rendre hommage ki nga xam ne mooy maître Abdoulaye Wade mi nga xam ne tey jii la anniversaire am tey la Abdoulaye Wade am juróom-ñeent fukki at ak juróom maanaam quatre-vingt-quinze ans yéen kaay gi dellu si na ci 19 mars atum 2000 bi Abdoulaye Wade di daaneel régime socialiste yéen kaay gi nee na Abdoulaye Wade baaxoon na di wax les seules batailles perdues sont celles que je n'ai encore livrées yooyu maanaam bëri na ay yoo xam ne jamono topp nañu ko lool yéenekaay gi di Dakar Times nee na maître Abdoulaye Wade bëri na lu am ci démocratie ci Afrique ak ci Sénégal ginnaaw yàlla Abdoulaye Wade la un grand intellectuel yéenekaay gi nee na Abdoulaye Wade avocat la mathématicien la professeur la académicien la homme politique la ak yeneen ak yeneen kay gi di Walf Fadjri xëy na ci médicaments yu bare bari yoo xam ne njëg gi jamono ji dafa daal di yokk loole moo tax pharmaciens yi ak médecins yi ñoom nag ko bu baax a baax bi nga xam ne am na ci wàllu woowa yéenekaay gi di Les yokk ci réew mi ndax lu jëm ci wàllum diwlin gi Sénégal diwlin gi yokku na ginaar yi yokku na jën yi yokku na yàpp yi yokku na yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy na ci avion bi nga xam ne coow li na ci lool te njiitu réew mi di président jënd ko avion boobee nag état bu dañoo lànkoon kandaare bañ wax li nga xam ne maanaam mooy prix di wax wàllum secret défense loolu la Omar Gueye waxoon waaye nag ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum finance lañ doon wax Abdoulaye Daouda Diallo daan na koy violé maître El Hadji Diouf ni ki démb janono ak tas ko do xabaar ma ngi menacé nee na soo muy tulee dina jël Ousmane Sonko ak mouvement pour la défense de la démocratie ak Guy Marius Sagna maanaam yóbbu leen ci kanamu CPI Cour pénale internationale yéen a kaay gi di Vox Populi ñu fekk fa Sitor Ndour nee na fukk ak ñett ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci manifestation yi nga xam ne moo amoon ci Sénégal Ousmane Sonko mooy responsable yéen a kaay xëy di ñu xibaar naan ñu église bi jamono ji ñoom ne nañu lépp loo xam ne jëm na ci wàllum góor jigéen ak wàllum yekkataan ñoom ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg te duñ ci mosa a ànd yéenekaay gi de la Soleil ñi nga xam ne nag ñooy église bi ñoom nee nañu duñu nangu benn yoon am ñoo xam ne ñooy jóg di jéem orienté wala di ñu jéem a nag dicté li nga xam ne moom la ñuy def yéenekaay gi di l'info xëy di ñu xibaar naan ñu am na ay juge examen balaa yoo xam ne maanaam wàllum góor jigéen la ñu fa doon def promotion bi ca diwaanu lycée bi nga xam ne moo nekk ci Rufisque loolee nag scandale tojaange la ministère bi nga xam ne moo lañ dénk wàllum njàng mi ñoom nag nee nañu mbir mi danañu ko lijjanti xool ana ñoo def giraawaali Mbacké ñu jël ay daan lal ko ci seenu ndodd yéen a kaay gi xëy dañu xibaar naan ñu am na benn policier boo xam ne ay xale ñoo luye woon benn oto policier bi arrêté leen xale yi jaar ci koom jàll policier boobu nag daan nay ñàkk bakkanam waaye nag loole daan nay tax policier yi nga xam ne ñoo nekk ci réew Sénégal ñenn ci ñoom mer nañu ba maara taale taali ndax nee nañu policier boobee nga xamante ni nag rey nañu ko ci anam boo xamante ni jaarul yoon amul benn organisation benn kuréel boo xam ne mooy xeex ak ak yelleefu doomu aadama boo xam ne yëkkate na ci ay kàddu te nag policier ci boppam dañu leen a jàppewul nit ci Sénégal ba tey ci biir journal bi yenn ci ay policiers nee nañu askanu Sénégal ak ñi nga xam ne ñooy kilifa yi autorité yi amul benn considération boo xam ne jox nañu ko police yow ana lan mooy ndey ko ci anam boo xam ne jéggi na dayu amul benn plateau boo xamante ni daan nañu ko si def amul kenn koo xam ne maanaam wax ne see mel ni daal dara xewul te nag bu doon keneen ngeen dégg nag ñu nekk ci antenne yeeg maanaam ci plateau yi di mbel mbele yéen kaay gi délibération nee na xale yi nga xam ne ñoo rey policier boobu xale yooyu nag seeni at weesul fukk ak juróom benn jàpp fukkat ak juróom-ñeent maanaam ay xale lañ la nga xam ne nag moo gën a doy waar ca mbir ma xale yooyee dañoo mandi woon ba tàggoo ak seen sago xamuñu fan la nekk yéen gi xëy ci Ligue des champions final bi nga xam ne moo war a dox diggante Manchester City ak ñi nga xam ne nag ñooy waa Chelsea ki nga xam ne mooy góolub Chelsea bi de Edouard Mendy di ab international sénégalais ma ngi jàkkaarloo ak histoire moo nekk premier gardien africain boo xam ne ma ngi finaalu nag